summan jalan huldihi ma hultiwa tan eɓe yiida suudu cuhle minna atti rasulullah wa isa huwa qad qubila ala hayrin hadara omo jogii mootum gulew omo daasa ɗum kanko rasulullah malaika ne dare damal ngal ene joogo ɓe ñaɓo baahi jullit la jullit dari lebbi jawɓe ɓe reɗum nene makko jibril telli ɓe ñanen hande amina laka mujisatun ajasat kullal wara ɗum ke kaisaji min badima qad khala يا رسول الله فوي لك معجزات أعجزت كل الورايا من بعد ما قد خلا الله لأن يسرى الرسول تنيل بجاهم جبريل تلي يقال لها ها أنت caggal salmindi mum nelaɗal e heman sofnaji o yeeyi o yiyani hay goto noon so nañi e hirnaji rewe goto wala ɗon ɗumɗin ti hannde koye a woni rewde badara lewdu seyidal umma ɗo hono ɓuri fof ko nder sunna seydi mursalina ajasat kullal wara e ila wadatihi sammihi muhammada am raktumi am raktumi an yajutunani fotahtani jokku seydi l akhirina ajasat kullal wara e sa wadatihi sadi cukalel ñel jiɗinama sa jibini rasulullahi adana no wiide woni ɓe anda e andano ɓe ko inndir muhammadan muhammadu wiite ɗo yallude aduna muhammadu wiite seydila wolina a jasatllah wata anda sa yiiɗo asmana ala namnoɗo nenanalla muhammadu a yiiditan ɗon wona muhammadu wiite ɗo seydila ina a jasat kullal wara inndir mo muhammad kalau ayat yattumi ayat yakkimmani fa ini, ni woni amrat mi ko mafkul muqaddam bitaku ubtidil amra aha soxna so ci sa jibni mo non di fofu may ko di fofu ma nan kon non ak ci la jibni fofu wato fay wato wat hay dal sultan non kam ko dida sul mil amra ay yekki ma kunuli mo jangel yitere mo jangel ceni ibrahim dingel ngel ren wona ko dida fuka qadrun sara ahlilan

رجلا جانا يجيب دعوة المسكين والمسكينة ويقلب المرضى في أقصى المدينة يسر الرحمة ويقري الضيف يدعو أصحابه بكراهم وبأسمائهم إليه ويميل إلى محادثاتهم ومتابعة أبنائهم بهذا الخلق الرسول الرفيع على أبي مولنا سيدنا محمد وخير الأنبياء إلى أي صلاة جيب جيب رسول الله jammatta warugo kono tan allah rokkimo kon fof o bakkaki o ñaagata o hollirani ko kewɗe yamɗirani hayrul anbiya ileylan raƴiral janib mo newiri noon woto sikko o satti hanke jam ya badrun sara leylan yujibu yujibu dawatal miskin wal miskina rasulullah miskin gonko miskin kon ko ɗon diwa ɗi wawi waɗe fof kono so miskin debbo ɗon diwa ɗi wawi waɗe fof noon hayrul ambiyai ira aɗani waɗanno satan waɗat satan waɗino saaha ko miskineɓe makko fof madina fof kawri ɗo gotel ɗi alkinda ko welanno hannde ɗo ɗi joɗɗi tan rasulullah ɗo tawa en ɗoyen bisimilla hamdan mi yettimo gawa bisimilla ma jom ɗewre kala rafine sellina di jàmm àndoo bandiraɓe manima tujibina aɗo makkata hay sinno ɓure mum mi hummata nde kanko yesinum rahma ko jokkannoɗo en ɗam kala juurɗo aɗa foti jokkude en ɗam saabu ɗo ari madina ko ari fof woni ismu silul arhama susalama wa adimu ɗaama wa silil arhama wa sallu lilleyli wonnasuliya jow jow hamdan mi yetti salaam onon ma mbaddiɗaɗaɓe calminte so neɗɗo fini yo salmin gon gon kanko fu ɗumɓe madina mami ma tujibinaɗo makkata hay sikko ɓure ummi humnata bokko jumit rasulullahi ɗum ɗuge madina tumona wara altini sohni dal ndigal gatal ah, wayal kamana albadu discours am bi mu njëkk a def li mu li mu njëkk a wax min saniyaati wada waaye ba seen arham jox ko leen mbokk mbokk dañ koy jox wajaba bu guddi jógee jotee bu guddi gi soree fexeel nga julli même bu dee ñaari rek baax waaye loolu bu ko am bu ko defee lu si yàqu ni tadxulul jannata bi salaam di ngeen dugg aljanna bi tànk kenn du leen visité salli yaa rabbi alayhi rasulullahi alayhi salaatu wa salaam moo doon wax man ahabbani kaana ma'i fil janna képp ku mu sopp man ak moom ñooy ànd ak dugg aljanna Rasulullaay daal mais am na li maa di wax si teeram yow tudd tey si rek loolu moo si nekk xawlam yëngu fii danaay fii fii fadaay fii kaw ni tàll ak ñu nekk si la mu wax tax xal bëri yëngu fii sax naa. naka mu di zaatum aw jasa kulla wara. te soxna wasu su lu woon su lu woon moo Rasulullaay moo feeñoon ba leeram bi jolli tey si àddina bi mu nekk loo ko moom ne sa morom rek wane ko. khali firman nadar kinana to khuzaimah to mudrikat ilyas mudar nizar pada adanan pada adanan adi nizar ramadan marijahizu adnanan fatakimuhu qadja aminal alamin misali Rasulullah sasabda Muni, tentang arnabaɓe ɓurul andal kamɓe fof soɓe ndenndini min ɓuri ɓe mbimi rasulah ne haalaasara jatmeri ormimi sa vingt nabi 313 yonen ñeenti ɓurul asri rasulah mune ñoom ñëpp ëllëg maalen maalen maalen mine jegeyam qad khatakum ñu ko waaw xam sàng de mu ngi bàmbu mu ni déedéet bàmbu mu allah قصيدة يا يا بائس البهر للأهداف عند هنا أنا أول أول الناس من الذي إذا بويسوا داف بها دونة أعلى من الجلب وبشروا بذا يئسوا وفي يمين النجوى وحمد كنانة وهزيمة ومدركة وفي مرائي ألف ملك من الملائكة كأنهم لولو المكنون قل يا سماء مدرك قبل إسرهم أنا أفضل الخلق جملة ولم لي ألا سطر عليهم إلا يوم القيامة لأنهم حرمة الله قد خلقوا أول الناس من يجاب lu tax bi buftu bu ñu walee man maay dig ko jóg مسيم سامي جور سما خارب كدال جو كابو كابو سيتي أتو أنبياء الله من جرمي مين أنبو يلقي ستري الله بمتا مين أنبو أمان من جاو بطن نعم بطاو بل سيدا مو أبو كابو سيتي كان يمي مولا كان حامل نور الله كان على اسم إذا بلا سكن ولا تعني وشافي ميزا حبكو بسوكا فوسل إننا نعمل نعمل نعمل نعمل نعمل kod min liggantoɓe kamɓe fof ɓe jottogo ɗo gotel womo bachir um isa yeysi jeese maɓɓe anwi ñanen min weltinna ɓe gattira e village moon rasulullah joom jamma an ɗo anda ɗumen kanko ɗuwi kamɓe kam o wiyaki noon miftahul jannata fi yedi coktirde aljanna ñanen ɗin tan jogotoɗo kay goto jogani kanko woni dogiraɗo jamma o fi yedi ɗum naji wawul hamdi drakko miteɗeɗamo hamdo min tan jogotoɗo kay goto jogataka rokkuma ɓuri tawi wuli wuli noon sabu ma kala hunde tagira kande fo sabu maɗa dañira sabu ma ayden leñifira sunnina kala kan joɗi ñande hen ɓe makko wiiten ɗiwawol hamdo hakkiteene waɗi ɓuuri sankoto hen kamɓe yimnoɓe rasulullah moustapha en gardi timmal hoore nde ene moofi ganndal yidde o koye huude hunnude himɓe makko ko lewde diine adama oman siwahuylla tahta liwayi adama ha yetti isa kamɓe gon fof ñanheni ɗi sakkade ɗen dram dram ko koɗo ala sonami yesoma ɓuri rewde ɗuɗude annduɗo ɓurinaaɗe jalɓude yimɓe o وللجود إن مقبل ودينا ayde ɗo jonde la yahya min jagis mum kala jooɗi ɗo manifestaji keppo ko fi toon ɗo tehedi degay tehe titey kanko woni gomnaɗo allah kanko woni ɗigganɗo allah kanko woni balliɗo allah kanko woni ballowo diina wakko jogiti hamgo deg

bu ko dégg dégg jibril ñee ko jàppee ne ko jógal tey amul amul liggéey tey fay rek moo fi am yàlla ne ko loo bëgg isfaatu safa santuuda ñaanal loo ñaan ma may la ñëpp ñu ngi déglu ñëpp bés boobu bu nekk musul gis rasulullah ñu koy gis ñi passé ñi mu bokkaloon jamono ak ñi mu ginnaaw ñoom ñun ñëpp dañ leen jàkkaarloo rasulullah leer bi di ñëw yàlla ne ko santuuda ñaanal tay mam maanaam day way wal fashaatu shafa ramul loo ramul tay moom def d'accord naa mu daal di d'accord d'accord la borom mu ni sama borom asal asaluhu li sama bopp moo tax ma def ci déedéet wala fatimata binti du sama du sama caat fatima kooku moo tax wala alhasan wala alhusayn ibn ali du sama ñaari sëriñ yi de alhasan ak alhusayn ñoo wa innama asalakum bi ummati sama xeet bi laa sama xeet ñooñu moom ñoo tax ma jóg tey si bés tey yàlla ne ko xanaa danga fàtte woon fële ci àddina si téere boobu dund alxuraan fàtte ko waxoon naa la si suratul ha wala sax ñu ñu gërëm ma kàr danaa la may bëgg kon ah, wala laaxiratu xayrun laka mina dunya may bi mu la may may ëllëg danaa la may li nga jël tey nag laa may ba kon mu ne du ma kontaan kenn si sama xeet mu daal di ñëw kenn aljanna mooy yore cànn bi kenn du aljanna dina si bàyyi la xam wa fii waraay alfu man alfu min al malaaka ka am na mu dugg ma malaaka yi koo si gis rek da lay seet miskin yàlla yëpp ko sama ginnaaw ñëpp ma dugal leen ay jàll rawatina nag ñi nga xam ne dañoo bay seen yitte yëpp pour fanaan ak lu rasul waaye def si seen i alal tamit boole si ñuy tàgg rasulaay ngeen di jël seen alal di joxe. bu soon nañu laaj rasulullah am na benn góor bu tudd Xasan ibn Sali bu buggee bu buggee bu buggee rasulullah wax dara rek moo koy tànn Xasan ibn Sali al Ansari képp ko xasoo rasulaay mooy fayu rasulaay day woy bu woyee rek ñëpp koy mun ñëpp koy mun te ñëpp day neex day naqari yéefee mooy Xasan ibn Sabit bu buggee rasulaay wax dara moo koy moo koy yëngal waaw moo koy yëngal ku leen a ah, allahu wa ni ka xaaru te bi doy laa ma koo jàppaar mhm.

من الذي يعاد من بزار نبي ورجود جميراي وعلم يا رجم شرف الإمام الدين جم فم والنبي ورون النبي جون كيد والجانار أزر دينك المدرسة دائما نور إلهي كن دائما وعلى رحيم سلطان ما كل اللي فوق الإمام وتيكم مجمع على بركم قلبكم يدي على هاكم ضرورة ونادم قبل المختار وزندي لكان الدربا كم افتنا مقوتة ما وحدي وحبلي بيدي ما فوق بني صاحب الأمراض أصلي مساكين teeru si la wax dara dafay tàgg su ko teeru bu ñëwee julli si ko rek fekk Rasulullah jëlee si si mbaar bi mu taxaw nag mu jëm di ko joxal man bu Jibril bi ay jiw Jibril moo koy moo koy jiite bu muy yóbbu muy joxaan Rasulullah rek ko su quwwatin su hummatin su makaanatin su izzin su fadlin mudaa'un mudi'un kadam sidqin rahmatul musaa kira rasulullahi daal di muum nag mu ne man ahabba ni karama yi suñ dem bu buggee wax dara bu suñu buggee mu wax dara loolu rek rasulullahi daal di toog toog nag bu ne achar lan ma ci di hubban ñu ne ko waaw mu ne ko mun yaquluna baali yawaddu ahadum annahu faqada ahlahu wa maalahu wa annahu raani xam ngeen ni ma gën a gudd ñu ne ko waa xam nañ ko tey Aboubacar nag Mar Mar Ali ñoo la gën a gis ñu dee du ñooñu de du ñooñu ñoo ma gën a bëgg ah ah xam nga ki la gën a bëgg mooy ñi nga xam ne doxee nañu tànk Makkatal Mukarram ba Madina fi mën a war mu ne leen déedéet du ñooñu de ñu ne kon nag ñi xare Badar ku nay ñoo la gën a soxla mu ne déedéet ñii de yéen dama dund ak yéen rek bay wax ngeen gis.

Dakar 92 mooy pour Mouhamadou Rachid Kane 92 kilomètres ah mooy Mouhamad rek Alaji Malick Dakar 92. waaw Alaji Malick mooy Malick boo ko calculé xam nga lan la lay joxe 91 91 mooy Rasulullah ay jéeg 92 bi ko jàllee rek 91 mooy moom Rasulullah ay dundam yëpp Rasulullah dundam yëpp rasulullah moo tax yàlla may ko léegi lim ko may moom moom El Hadj Malick maam Ousmane. allah azimu leeral wilaadati hisbata iza lam yakun min awal xaraami duudu Safina FM mu ngi dégg suñu bàtt waaw waaw. azimu màggal leen leeral wilaadati guddi rasulullah man maa ko wax man yonent bi fu ngeen mën a dem. sallallahu alayhi wa sallam. xisbatan ngeen sakku tiyaaba la. waaye saa la nekkul naa ko xalaat bu dul bu leen jàng nag dem si dem si caaxaan bu leen si boole lu xaram respecté leen ko mu digg rek. rek doomu ndeyam li nekk nekk Touba Xaadimu Rasuul mu ngi tëdd rek jóg doog boobu tam kontaan amul waaye ba léegi yàlla yàlla kenn si ñoom bu boyee rek keneen ki lay dégg xaj bi mooy ñëw si moom. sama waay waay lu rëy لا أسر الليل إلا نسبة إذا لم يكن نحو الحرام كله خالد رسول تعي وحبك تعزمه بسنتي يأمرنا للجنة بازدياد المنة بمخلص مقتدر وخالد صلى الله أي كونكر لن يريد ñun أي ñun Sénégal ay ponkal la الله yore laa wax barke rasulullah Xaadimu Rasuul nee na taazimuhu màggal di Rasulullah ñu ne ko waaw mu ne bi sunna kii la teg si de teg si sunna de yaquluna lil jannati boo ko tegee si sunna rek moo ñuy wom mat ba dugal ñu aljanna waaye ñu muxlisin da ngay safal jëf ji guddi gi yëpp da ngay sell muxtadi bi liggéey bi si liggéey yëpp la sell bu ko defee rek loolu mën na la yóbbu aljanna ñun nag si loolu la ñu nekk nekk di di màggal tur laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah. wa allahu rakiya أنه فتحنا فتحنا كيف فتحنا كيف Now you did, now you did, now you yal nañu yàlla fayal suñu sàng yu tedd ñoom ñoo tax ñu xam rasulullah ñoo tax ñu xam Seydi Cheikh ñoo xam ñoo tax ñu xam Cheikh Cheikh Fouti suñu waay bu baax na ñoo ñu nampal si lii ba lii mën a am tey tey fii nekk ñoom ñëpp si barsax am nañu contact seen i jamono liñ ci béy woon dëkk yàqu-yàqu jërë ngeen waaye bu liggéey dañ ko war a wax dara jëf ci liggéey la yombul dara ngeen jëf gis nga yeneen yeneen lépp lu ñu am rek nañu xam ne rasulullah mooy raay mooy raay ah, ah kee gis nga raay bu amul wax raay ndaw ndaw ñoom ñëpp boo gisee ñu tànk ci wàllu ñuy wax seen wax rasulullah mooy ñoom du ñun de ñoom yàlla si ponkal yàlla lay ponkal lay wax mais nag boobu da nga ko naan naan pourquoi ma koy wax ndax aadama moo jur ñëw ñëw loolu lay wax aadama mooy yow muy bachar moo jur ñëw ñëw waaye laaj ko bi ko yàlla sàkkee def si moom mu mu tisoo ne alhamdulillahi rabbil alamin maanaam nag daal di wax alhamdulilah rabbil alamin topp aadama yàlla de suñu dugal leen aadama ñëpp maanaam ñëpp suñu mu war kuraas julliwul de wóorul saraxewul jokkul mbokk deful dara tuddul yàlla yàlla bàyyi ko loolu mu dugg aljanna moom ak soxnaam yàlla nag ñun ñëpp yaa ko lekkal naana solal yëre yaa ngi yu koyof bu dee tàngoor ñuul am na yëre yu diis bu dee sedd ñuul yaa ko moom mais benn garab rek laa la wax bu ko laal dara def ñun tam ñu ngi ko yàpp ko alal ci ñu de ko alal ko ko argaas ありがとうございます。 bisu aljuma la woon mu tàllal wax ak yàlla mu ne asaluka yaa rab mooy wax an taxfira li zanbi bi xaqi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sama borom maa ngi lay ñaan nga jéggal ma sama bàkkaar ngir Muhammad rasulullah aljuma la de maktuban ala qawaimil ars la ilaha illa allah Muhammadu rasulullah ne ko yàlla bi ma sàkkee nga def si man ma xëpp sama bët yi xool si kaw gis naa al ak si yëpp bind yu rafet yu dij yu leer bind bu nekk nekk si bind laa ilaha illallah dof ko doo ci mun Muhammad rasulullah alim bi ànd ak la ma ci rasulullah sax laa mën a am xam ci ma xam ne daal doo toftal si sa tuur ku dul kii wa dina soxla yàlla ne ko xasat yaa aadama téeméeri million ak nag dee wala déet wax na yàlla dund ko de dafa taxaw foofu ay millions yàlla nekk sadaqta yaa Adam benn àjjuma àjjuma bi dégg ngeen sadaqta yaa Adam Adam wax ko dégg wa iza sa'altanii bi haqqihi ghafartu laka boo ma ñaanee nga jaaree bi si rasulullah rek ma jéggal yoo xam naa xam nga wala wala Muhammadul ma xalaat xanaa xamoon yow suñu la Mahamadou yow doo doo am ñam yow aadama aadama kon rasulullah du morom aadama du moromam du ñu benn sax du ñu benn sax mooy borom guddi bi suñu yonent la moo ëpp yonent yëpp moo tax ma ni ñoom yonent la yëpp dund ñu am rasulullah mooy raay bi ñoom fak raay rek maanaam li mu ahad ni xelata islam yi lépp li lay wax man lépp lim loo xam ne si téere laa koy gis ngeen mbubu bii ma sol rafet na wala rafet wax leen fenn rafet dem xalwaar at bi at bi passé le 29 ba tax la ma ceer na ma ko ceer na mu damay dañ may solo damay dañ may solo rek ma am ma ma ma am réseau ma am boo buggee ma am réseau rek solo ma am professeur ba tax ma micro ba tax ma ay taalibe yu mun xilaaf si fa tabaraka wallaay di tax kon nag nit ku la def lee dara dañ ko war a wax eh ñaan la minhum ahadun illa minhum ñoom ku nekk si ñoom bu amee leer bi Rasulullah ko may xam ne mooy sadul anbiya xanaa xamal mooy muy wati safati samaabu suudi sababu wujuudi mahabbu riyaahi mooy kamaali jamaali anbari izzati mahdi habibi aynu inayati ibratu samati ah wa wasalatu iladati wa baytu basiri wa nudatu dairati wa hulahu nash wa nuur wa dawru wa ruklu wa saadu wa manharu وإرسل وإلم وهلم وكان له منزل يدل على نبوته وخلق يدل على خيرته بقد الأوزان في صغره هي قوة بيان بيده قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني رسول الله أمر رقم جمهور man daa sonn benn jiw tey mais nit ñi benn jiw xaw ma ndax kontaan ngeen waaye man kontaan naa jóg ma kontaan si biir rasul lay tey ceerno ceerno ceerno yow na yow na ko dundal fanam beral cëram yàlla fay waxoon naa leen sax bi may tàmbali ceerno yàlla bi mu ñëwee kenn xamul ko si Dakar kenn xamul ko woon bokkul ak gars yi nga xam ne ñoom daal di seen sàkk ëllëg daw fale déedéet